wala hawla wala hawla wala hawla hunu ko mon subhanallah ay yàlla sunu borom wala hawla wala gite mon wala hawla wala kunude moɗon wala hawla wala onon subhanallah allahu akbar subhanallah est subhanallah man detit man tiit na wallahi wal azim ku tiitul tiit na subhanallah hey yàlla sunu borom non du senegal la nu nekk dañoo weccu senegal ñu ngi Burundi ñu ngi Uganda non onze billahi minal seen gémmiñ rajim ñapput ma leen wala hawla auzu billahi subhanallah subhanallah allahu akbar ah wala hawla wala yéen wala hawla wala yéen auzu billahi minal yéen subhanallah non nekkul Sénégal c'est du jamais vu la méchanceté humaine c'est du jamais vu coxorte doomu aadama ci kaw mbindeefu doomu aadama c'est du jamais vu dëkk bu ñuy naan quatre-vingt-quinze pour cent de jullit koo si ubbi xolam moo gën a ñuul këriñ subhanallah maa ngi doog a xam lu tax Sénégal bari ay néegu barak maa ngi doog a xam lu tax Sénégal bari ay nit yu tumuranke maa ngi doog a xam lu tax Afrique yor ay walaakaana yu dul jeex maa ngi xam lu tax yàlla sunu borom di teral der bu weex parce que der bu weex ñam naa fa as tuut def naa fa ñett at ak lu to suma gis der bu weex di lijjanti moromu der bu weexam taluñu ko amuñu jot bi sénégalais dëkk quatre-vingt-quinze pour cent de jullit ko si ubbi xolam mu ngi yor xolu wala kaana xolu gaana xolu ndeef bu bon bu yéene bon man doomu aadama laa doomu jàmbur laa man maa gën a weex jaxatu mënu ma lekk mënu leen ma coob bépp ay ati at yéen ngi ŋaaŋ am kalifon andil kalifon am kalifon indil kalifon wala xawla wala yéen alhamdulillahi rabbil alamin ba sunu borom bii di sàkk jaamam du nit bi muy sàkk jaamam nit fekkeewul bu muy dimbali jaamam nit du fekkee buy wàllu jaamam nit du fekkee bu nit doon fekkee nit ki ne ko yàlla bul dimbali kii bul taxaw kii bul wàllu kii rawatina nit ku ñuul rawatina sénégalais yowmal qiyaam bu embouteillage bi baree ci yoonu safara sénégalais yi ñoo nekk ci kanam ça je vous le dis fii yéen yéen a bon yéen yéen a xasan xol yéen yéen a añaan yéen xanaa tey bu ngeen fekkoon benn Kaliphone sax nekk bitim réew tubaab bi di ko troxal yéen kon du ngeen jël défense su man lan laa def ba mérito chaque jour ngeen nekk si man du matin au soir qu'est-ce que j'ai fait da ngeen dégg Kaliphone dafa violé génne leen da ngeen dégg Kaliphone dafa rey nit génne leen da ngeen dégg Kaliphone day jaay dorog génne leen da ngeen dégg Kaliphone dafa bokk group des malfaiteurs génne leen lenn daal la Kaliphone def mooy Kaliphone jeune bu gëm boppam la Kaliphone juddu xamul ndeyam Kaliphone ànd ak baayam ba muy am 18 ans baayam génn àdduna Kaliphone juddoo ci banlieue yaro ci banlieue màggee ci banlieue Kaliphone nekk ci di góorgóorlu di góorgóorlu kenn musul ne Kaliphone am yàlla jox la Kaliphone am yërëm naa la ñàkk nga ndey ñàkk nga baay waaye am ñoo la may lii am loo ndekkee am loo añee mësul leen ko gis loolu ngeen di mer loolu ngeen di siisu bu doon seen sago fu ngeen romb Kaliphone mu ngi sol ay yëre xotteeku bu doon seen sago fu ngeen romb Kaliphone mu ngi sol ay dàll carax bu doon seen sago Kaliphone jamono jii mu ngi taw day teg fii siwo di tank ndox muy tuuri bu doon seen sago heure bii Kaliphone du tal sol lii day dem ni ngacc ndox bi muy génn këram waaye yéen yàlla sunu borom mooy bind jaam yàlla mi ma protégé si sama biir waajur pendant neuf mois mu may wallu di ma taxaw ba yàlla dogal ma ñëw si dunya yàlla boobu di ma jàppale ba sama ndey génn àdduna ba may am ñaari at yàlla jooju di ma jàppale ma juddoo ci banlieue yaroo ci banlieue màggee Dalifort ay jamono gendarmerie ak police def liste rouge Dalifort ci drogue ci agression ci lépp kenn mësu si gis Kaliphone te pourtant boobu ndey nekku fi bàyyi nekku fi ma mënoon tux ci yàmbaa ji ma mënoon naan si sàngara ji ma mënoon jël paaka di agressé kalifon am éducation nice am ñaanu waajuram nice am protection divine yàlla sunu borom sàmm ko taxawu ko di ko jàppale yéen ngeen ne déedéet yàlla sunu borom dinañu xeex ak yow parce que Kaliphone bi warul dund onze billahi minal yéen yéen yéen a yor xol bu bon yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yées léegi man lan laa def lu waral ngeen ŋamm Kaliphone pendant ay at ngeen ne du ngeen ma wàcc qu'est-ce que fait dama bëgg xam ngeen def rek live ne Kaliphone lii nga def li ngeen may reproché daal mooy nekkoon naa biir APR bokku ñi tax président Macky Sall falu en 2012 ma xeexal ko campagnal ko ba président Macky Sall ba muy ñëw Dalifort sama kanam ay 23 heures zéro mu ne xam naa seen jafe-jafe mooy ay canalisation bu borom bi dogee ma falu 2012 ma defara leen ay canalisation defal leen pavage ñu xeex si loolu ba président Macky Sall falu lim ñu duggoon yépp ci biir Dalifort mu def ko tey jii bu Dalifort di taw dëkk bi yépp a ngi taw ma toog sama biir kër ngàccu ma grâce à président Macky yàlla dogal deux mille dix neuf mandat deux mille douze am bi jeex jeunes yu bëri ànd ak yeneen parti jàppale yooyu parti man ma gëm président Macky Sall bi ma ne woon yoonu yokkute lay woote ma jàppalewaat ko di ko campagnal di ko xeexal ba sama tànk damm si tey jii am na nu mu doon demee nu sama tànk dammee sama bopp mu doon na toj ma dem alaaxira kan mooy taxaw sama njaboot mais heureusement yàlla sunu borom mu ngi may suturaal ma fal président Macky Sall 2019 tombeek sama tànk damm yàlla sunu borom dogal ma génn réew mi bi may génn réew mi yéen ñëpp taxoon ngeen rajo yi si internet Kalifone Sall Marème fay Sall ko yóbbu Europe te xaraam xaraam ngeen taq rajo yi Kalifone Marème Faye Sall ko yóbbu Europe yenn nitu APR yi di mer naan Kalifone lan la def ba Marème fay Sall di ko yóbbu Europe di mer te xaraam ba may dem sax première daam yëgul ne Kaliphone a ngi Europe ba mu ñëwee Paris la ma teg ba na ma yow kañ nga fi barke alxuraanul karim kañ nga fi la ma wax yëgul sax dem naa Europe jour ñëw na Pikine di distribuer ay moto pompe mu ne ana Kaliphone gaa ñu ne ko mu ngi Paris yëgul ne sax dem naa bitim réew ngeen takk rajo yi Marème fay Sall mooy yóbbu Kaliphone Paris boobu sunu borom rëddoon na Kaliphone boo juddoo ba am atu sangam dinga nga dëgg euh, dëkk nasaraan jaaruma si gaal visa laa am yëg avion wàcc nekk ci dëkk bi ba ma nekkee France yàlla dogal ma nekk ci nekk ci ba am lu ma frustré ci parti APR ma toog ci wet bi mbirub xale duguma may yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg yenn sénégalais yi di ko teg njiitum réew mi di ko teg ay kilifa ma dem ba ci biir waxtaan ak sama njegenaay ne lii ma nekkee du dëgg du yoon maa ngi tooñ et bu may wax kàddu yu ñaaw yooyu yéen ñii toog fii tey yëpp di ma moom ba bëgg maa lekk yéen a ngi doon seetaan yéen a ngi doon partage yéen a ngi doon woo whatsapp ne ma yaay patriote bi yée ma di noonu ne ñaata nga soxla ñu jëndal la ay téléphone ñaata nga soxla ñu yónnee la ngay lekk yéen a ma ko doon wax dàll sax jëndal ngeen ma ko ngeen di kontaan parce que maa ngi woon si yoonu sànku bi di wax naka sudul noonu kilifa yi ngeen di fecc yéen ñëpp leaderu passé fi mag yi amul ku daan dul dugg sama biir live ba ñuy nekk si internet bi di généralu Ousmane Sonko yëpp muy góor muy jigéen amul ku doon duggu live bu Kaliphone face to face wala woo sa participer si live bi ne ma tuye le meilleur dañ ma doon partagé ba partagé ma tës bu Ahmed Aïdara di ma waxtaane ba biir Walfadjri ñëpp di kontaan te jamono jooju nekkum woon si lu baax kàddu yi ñaaw yu tilim laa doon yëkkati kenn si yéen musuma woo ne ma li ngay def àndut ak politique mën ngaa politik mais bul xaste mën ngaa politique mais bul saaga saa yu ngeen ma woowee da ngeen ma doon naan ñafal dooral kenn daanul nañ ñi Kaliphone ci internet bi kenn daanul saaga Kaliphone ci internet bi ma waxtaan ak sama njege naay xam ne lii ma def du dëgg du yoon ma jël yoonu tuub borom bi dogal ñi ma doon tooñ yàlla dimbali ma ba ma toog ak ñoom ma ne leen tuub naa maa ngi baalu àq te ma yaakaar en tant que sa moromu julit rawatina sa moromu doom bu jàkkaarlook yow ne la maa la doon tooñ àddunaa ak lu si biir lépp lu ñaaw teg naa ko sa der lépp lu bon wax naa la ko mais maa ngi jéggalu sunu borom maa ngi lay jéggalu yow mi ma doon tooñ mu xool xam ne kii mbindeef la te nit dina juum yàlla sunu borom rek moo dul mu ne ma juum nga baal naa la yàlla dogal na ni jamono ji rek yàlla sunu borom am na lu mu santaane bind na safaraam bind aljanaam ne bépp mbindeef boo xam ne yaa ngi may tooñ te tuubo ba borom bi dogal dee nga boo ñëwee sa kër mooy safara yàlla lu ma wax lu leer la boo ma tooñee nga dee te tuuboo sa kër safara la mais boo ma tooñee balaa ngay dee nga tuub sa kër aljana la ñu xam loolu ba boo doon naan sangara boo doon njaaloo boo doon def lu bon nga toog jéggalu yàlla sunu borom ne borom bi maa ngi lay jéggalu yàlla na nga ko def quarante ans nga xëy un bon jour nga demande njéggal sunu borom sunu borom jéggal la te si dellu boo dee woon la lendemain boo demee du safara mooy doon sa kër aljana mooy doon sa kër léegi ki ma doon tooñ ci ñaari weer ma ñëw jàkkaarloog moom ne ko tuub naa baalu naa la mu ne baal naa la ñële ne déedéet waroo ko baal da nga ko war a rey da ko war a tëj da nga ko war a dóor bu ko defee boo ko reyee boo ko tëjee boo ko dóoree ñu taqati rajo bi ne lii lañ leen doon wax président bu bon ngeen am xoolal booy bi nga xam ne rek dugg na aal am na lum ko wax ñëw na jéggalu na ko mais rey na ko jéggalu na ko mais dóor na ko jéggalu na ko toroxal na ko lii lañ leen di wax ki ngeen yor du du borom xolu jullit moom mu ñëw xam ne borom xolu jullit la te yàlla sunu borom moo ne buñ leen tooñatee bu ngeen mënee jéggal jéggal leen te yàlla tax mu jàng loolu xam loolu mu def te yàlla tax ngeen takk rajo yi dinaan insulteur public koo xam ne benn yoon la ko def ci àddunaam te jamono jooju am nañu ko def ay vidéo ki vidéo ki vidéo ki vidéo ñu ngi seen wet benn si Assane Diouf ay vidéo vidéo vidéo lafi saaga muy président la fi saaga muy Youssou nduur la saaga muy Pape Diouf la fi saaga muy ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune la fi saaga sëñ Bass Abdou Khadre di porte parole xalif général des Mourides te boobu ba léegi jéggaluwul tuubul déggu leen ko fu ngeen taxawee mu ne sëñ Bass Abdou Khadre tuub naa dégguleen ko fu mu ne Youssou Ndour baal ma déggu leen ko fu mu ne ndem si yàlla Seex Béthio Thioune daan naa la wax kàddu yi ñaaw jéggal ma ba léegi tuubul te yéen a ngi ànd ak kooku di fecc di wëy di jubile di añak moom di ndékk moom kooku ngeen may ko jàmm ngeen may ko salaam mu ngi toog ak seen ki ngeen naan mooy seen ku sell ki man ma koy naan mooy ku tilim ki di Ousmane Sonko gis nu Ousmane Sonko di toog ak moom di añ ak moom di wax ak moom téléphone te bu ñuy naan insulteur public yaakaar naa ni du romb Assane Diouf kon Ousmane Sonko bu dee day ñoddi du ànd ak insulteur wala ay nitu Ousmane Sonko du ñu toog ci réseau bi naan insulteur public la ñuy dimbali lii wala dimbali laa lan ngeen war a mën a wax Assane Diouf waa jooju ngeen naan moo laa Morgan jamono ji amul ku mu saagawul Sénégal ba gis ngeen vidéo yi bëgguma ko teg ba sëñ bi nga xam ne mooy xalif général des mourides kàddu yi ñaaw la ko yëkkati yaa même pas un mois ngeen di koy dégg vidéo yi ñu ngi ci internet bi mais amul kuy toog muy ci presse bi muy si yéen ñëpp di naan mais booyu sonko yi xamadi nañu dañuy dem bay saaga sunu kilifa diine du ngeen ko wax du ngeen ko ñeme xalaatu leen man de musuma saaga kilifa diine musuma saaga kilifa aada musuma saaga yeneen i nit lu dul benn njuumte bu ma defoon ngeen ne man ngeen di taqal raaya maa dàq saaga si àdduna bi doomu jàmbur la mënu leen ma coob mënu leen ma lekk bu nekk sunu borom yàlla sunu borom bu dogalee suba ci talaata bi damay génn àdduna mbindeef ci kaw suuf mënul wax ba suba ma dund bu yàlla sunu borom ne dinaa dund cent cinquante ans mbindeef ci kaw suuf mënul wax ba ma dee fii ak un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans bu doon loolu la lekk ngeen ma ba ma dee mais heureusement yàlla sunu borom moo fi nekk du yéen du seeni ay soit soi-disant sëriñ yoo xam ne toog nañu ay ati at di ma menace Kaliphone dina gis dans une semaine dina faatu Kaliphone dina laago ngeen def lu ne di ma ko sotti yàlla sunu borom di ma protéger. taquma naanuma sangatuuma sama bopp ma bàyyi koog yàlla sunu borom mi ma sàkk te bu may sàkk benn baayu jàmbur fekkewul benn ndeyu jàmbur fekkewul ngeen ne da ni may coog mënu leen ma coog mënu leen ma lekk du kenn nag ku waa kër Ousmane Sonko yi ngeen ñëw rek si politique bi rek yore xolu walaa kaana yéenewu leen benn sénégalais jàmm. how do you how come après ma autorité how come say that yéeni wu leen kenn jàmm yéen waa kër Ousmane Sonko yi kan ngeen yéene jàmm mooy ki bokk ak yéen président Macky Sall ba muy dem rek Mali barki démb yéen a ngi naan yàlla na ko waa Mali yi euh, euh, euh, armée bi tiire ay bal président Macky Sall ba muy dem Russie yéen a ngi naan yàlla na ko Poutine kidnappé ñu ngi koy gis ci internet bi seen xol yu bon lu tax xol bu bon si dëkk bu ñu doon naan dëkk de jullit dëkk-dëkk nga gis sa morom nar a torox sax nga ñëw may ko loxo dimbali ko ne ko taxaw naa la mais man dama jommi dama jommi dama tiit dama waaru ci yéen dama jommi dama tiit dama waaru ci yéen parce que xam naa seen place ëllëg du doon fenn fudul safara bu tàng jër parce que yàlla xol lay fay te yéen seen xol dafa ñuul seen xool dafa bon te nekkewu leen ci dëkk bi lu dul ay fen ay kàcc te looloo gën a yées looy gis ci kaw suuf fen sos duma mën a jaaxal nag parce que seen kilifa ki ngeen yaakaar ku ngeen ne moo leen gënal seen ndey ki ngeen ne moo leen gënal seen baay ki ngeen ne moo leen gënal seen kilifa diine kooku moo ñëw jàngal leen saaru fen bi muy seen baay Ousmane Sonko booy wër comprimé duul kat xooyalal Ousmane Sonko rek naan moo leen jàngal yore xol bu bon gis nañu des vidéo commissaire de police sax taxaw di ko naan monsieur Ousmane Sonko di ko waxe naajement mu ne ko madame s'il vous plaît waaye ma gis nañu vidéo yi gis nañu vidéo Ousmane Sonko taxaw naan sa combat s'annonce mortel ban combat naka ngay toogee na ñun ñëpp ay sénégalais lañu nga yéene ay biir sénégalais na am ay nit yu faatu bakkan ak nu mu fooree naan lu fi jële président Macky sàll mooy il faut ay nit dee ban politicien moo mës wax loolu ci kaw suuf amul ku dul Ousmane Sonko bu bon bi ku dul Ousmane Sonko bu yées bi ngeen def papa ngeen def sëriñ ngeen def yaay mais yàlla sunu borom dogal na àdduna du neex ba ñun ñuy jaamu Ousmane Sonko adduna du neex ba ñun ñuy martaatu Ousmane Sonko jamais au plus grand jamais gënuñu ci ndey gënuñu ci baay lu mu def biir Sénégal ba ñu naan Ousmane Sonko héros la gisuma ko teguma ci sama bët ba Casamance bi mu juddoo nee leen ma garab bii rek Ousmane Sonko moo ko peinture amul table de banc bi Ousmane Sonko moo ko jënd may ko élève sàngam amut douze public koñ bii Ousmane Sonko ko tabax amut te ay jafe-jafe yàggoon na am biir Sénégal ba Sénégal yëpp toog fii naan Sénégal métti na courant di coupé xëy xamaj ñëpp génn diaspora bi sax dagg bie ñëw Sénégal di xeex boobu fu Ousmane Sonko nekkoon bu ngeen di woon ne Ousmane Sonko patriote la fan la nekkoon jamono jooju amul archive bu ngeen di génnee ci manifestation yi ñuy wane ne que Ousmane Sonko xeexaloon na sénégalais yi ba sénégalais di sonn en 2011 amul amul vidéo bi du ngeen wane dix ans si ginnaaw fu Ousmane Sonko ne maa ngi màggali Touba amul du ngeen wane fu Ousmane Sonko demee gàmmu woon six ans si ginnaaw amul du ngeen wane si Ousmane Sonko ci archive yi Kër Massar amoon na inondation ñëw na massawu na waa Kër Massar du ngeen wane si archive yi waa caaro yi ñu ngi doon dund inondation Ousmane Sonko ñëw na masawu leen du ngeen ko wane du ngeen wane ci coronavirus bi nga xam ne daloon na sénégal yi Ousmane Sonko yëkkati na téeméeri junni dimbali état du Sénégal ne lii sama participation symbolique pour xeex lii comme ni sénégalais yëpp boole woon mais dans la main pour xeex corona bi amul kooku lan la liggéeyal Sénégal haade hokkam seeɗa mami uddite mi mami uddite oto wattam jahase mami uddite mami uddite ah non annene s'il te plaît mi wima mami uddite hat ah, mi udditema léegi yéen bu ngeen ñëwee dañu gëmloo ni way Ousmane Sonko moo fi nekk c'est le meilleur ku sell ki la ku sell koo xam ne Ousmane Sonko suma gis fotom waxuma la mu dem Màkka de Fès Maroc ziyaare ji mësuma gis Ousmane Sonko def ko mu musuma gis Ousmane Sonko jël na sax waajuram yóbbu na ko Makka gëmul yooyu gëmul gënd gi mbindee sallallahu alayhi wa sallam gëmu ko bu ko gëmoon du liggéey 17 ans impôt domaine jënd këram cité korkor gi tabax ay millions jënd ay 4 x ay millions yor ay iPhone ay millions ba léegi déggu leen ñu ne yaay Ousmane Sonko ajaratu déggu leen ko parce que gëmul yooyu yéefar sax ko gën kooku ngeen di ñëw di ñu sonal di ñu imposer naan c'est le meilleur ku sell ki la moo mën senegal Sénégal xaraam subhanallah yàlla gëmmul nelaw senegal dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul senegal dëkk maam Limaamu Laay Sénégal dëkk maam Fuutiwu senegal dëkk Seydi Haaji Malick Sénégal dëkk kilifa diine yi baax dinañu ñaan yàlla sunu borom na yàlla def naataanga Sénégal dinañu ñaan yàlla sunu borom na yàlla def jàmm Sénégal ñi jiite Sénégal ba ba léegi jàmm ngi am sa Senghor même bu ñu bokkutoon diine mosu leen woon dégg mu naan combat bi day annoncé mortel Abdou Diouf mosu leen ko dégg mu yëkkati kàddu yooyu Abdoulaye Wade noonu ba président Macky sàll bi mais benn Ousmane Sonko bëgg ñëw toog te bës bu yàlla dogoon fii ak l'an mille cent cinquante cinq mu toog ban sénégalais la mën a dimbali. du wutal ndaw ñu liggéey du saaku ceeb bi di jar vingt mille mu ñëw andi ko huit mille du kilo ceeb bii di jar sept cent mu ñëw andi ko deux cent du facture courant bi nekk vingt cinq mille ñëw andiko ko mille cinq cent mënu ko parce que ñu fi jaar ñoo ko ëpp bopp gën ko jàng te defuñu loolu du benn Ousmane Sonko ñëw def loolu moo tax yéen la ñu mën a manipuler yéen ñi nger xam ne seeni ndey gërëmuñ leen yéen la ñu mën a manipuler yéen ñi nga xam ne seeni yuur yi dafa ñëw seen cuksu yi yéen la ñu mën a manipuler yéen ñi nga xamante ni tekkiwu leen franc parce que bu ngeen tekki woon franc du ngeen toog benn Ousmane Sonko toog 17 ans di liggéey impôt domaine di encaisser ay million tabax kër ndeyam tabax kër baayam am alalam campagne bu jotee mu ne walaa kaana bi ñëw leen cotiser ma ngeen di yëkkati seen i rek seen i 700 ngeen di koy jox jamono jooju seen ndey seen baay amuñu lu ñu leere loolu mooy nit ku tekkiwul loolu mooy nit ku amul ñaanu waajur moo tax xaalis bu xaraam bi moom du mas a dem ci yoonu yàlla bi genre Ousmane sonk bi rek ñooy jël encaissé doxantu Sweet Beauté def fa yu ñaaw yéen takk ngeen rajo bi takk internet bi yàlla dogal na ni jóge naa Sénégal euh, France ñëw Sénégal comme sama grande sœur bi di mën a ubbil ça fait trois mois mu ngi fi trois mois ba mu jigee France ñëw ak ay doomam man ma def rek un mois pour l'instant toog ngeen taq rajo yi revue de presse yi TikTok bi Facebook bi Kaliphone a été bloqué Kaliphone a été bloqué par qui par Macky Sall ngeen di kontaan naan Macky Sall lu mu mës a def si Sénégal yëpp mosu leen si kontaan du stade bu mu fi def kontaan kontaanu leen du TER bu mu fi def kontaanu leen du BRT bu mu fi def kontaan kontaanu leen du grand projet yu mu réalisé si Sénégal kontaanu leen si loolu la ngeen kontaan mooy président Macky Sall tere na Kaliphone génn Sénégal loolu loolu daal ngeen ne loolu daal le président Macky Sall mais président Macky Sall nekkul si détail yooyu président Macky Sall bu tolloon. Kaliphone bu ñëwee Sénégal mu bloqué ko bu ma toogee moom Paris ne ko baal ma daf may ne baaluma la du si tricher du si nëbbatu mënoo ne yàlla sunu borom tuub naa yàlla ne waaw tuub nga ëllëgi si biir mu ñëw ne la tuub nga kay mais safara mooy sa kër déedéet loolu nag si yéen la nekk wan na sénégalais yi que yéen ay yéefar ngeen wan ngeen sénégalais yi que yéen ay xoli bon ngeen yor wan ngeen sénégalais yi que yéen ay xolu rebelle moo nekk seen biir xol yi xamu leen luy jéggal xamu leen luy baale. loolu day wan ne Ousmane Sonko bi bés bu nekkoon président l'an deux mille cinquante deux ku ko tooñ mu ne garde yi rey leen ko ku ko woqu mu ne garde yi tëj leen ko. loolu mooy signifier seen manifestation bi ngeen di nekkee fan yi si réseaux sociaux yi président Macky Sall bloqué na Californie alhamdulilahi rabbil alamin lan la koy apporter président Macky Sall bloqué Californie lan la koy apporter lan la koy dim lan la koy apporter man lu ma def bañ may bloqué damaa jaay yàmbaa ci réew mi damaa jaay dorog ci réew mi damaa naan sàngara di dox ci mbedd bi dama tox di dox ci mbedd bi yàlla dogal na ni cigarette a gën a ndaw musul tegu sama tuñ sàngara musul tegu sama tuñ te dégg naa lu ne Kaliphone day dorogewu Kaliphone day mandi Kaliphone góor jigéen la lu ne laa dégg Kaliphone ëmbagul rek laa déggagul ci réseaux sociaux yi yàlla sunu borom di ma ne doxal sa dox rek melal ni sa njiit dégg na lu ne waaye tontuwul lijjantiwul te boobu ba léegi mu ngi avancé boobu ba léegi réew mi ñu ko doyk réew mii ngi avancé moom ak ay ministre am ak ay directeur am liggéey rek liggéey yéen jamono jooju travaux yi gis ngeen dëkk bi yëpp boo jugee bitim réew dëkk bee ngi fees embouteillage ndax foo tourné ay travaux te jamono ji ñu tombel covid 19 bi jaar fii guerre Ukraine bi jaar fii dëkk yi ci Afrique yëpp dem leen ngeen xool képp ku songoon liggéey sa liggéey taxaw na bépp dëkk Afrique bu songoon chantier même bu doon benn stade stade bi taxaw na jamono jii ndax Covid 19 France sax am na ay sociétés yi te France am na ay nit yu ñu licencié France ñu ngi dëkk du matin au soir ci ay grève depuis Covid bi dogee ba léegi Amérique waxi noppi Angleterre waxi noppi boobu ba léegi yàlla di soutral son excellence monsieur le président de la république dina ko ne maa la teg loxo. ba insha allahu rabbihi fan ngay xamee ni makki Sall ma la teg loxo man yàlla sunu borom dinaa def Sénégal yàgg na président bu ne jaar na fi mais si sa mandat laay génnee loo xam ne fii la sénégalais di jaar tekki ba faw mooy pétrole ak beeg gaz bi président Macky Sall yàlla sunu borom neewit ko it président yi bëri jaar nañ fi def ay milliards ci mbiru football pour ñu am coupe musuñu egg sax ay final fu sori président Macky Sall si xolu dem si yàlla sunu borom di ko suturaal mu dimbali ñu ba andil ñu coupe d'Afrique ndax xol bu rafet maa ngi déggoon Bamba Fall di ko wax keroog nee na dafa yéex a xam kuy président Macky Sall sénégalais yi bëri nañ ko gis nii rek ci écran bi ku ko gën a nekk jullit ci biir Sénégal gisuma ko ku ko gën a rafet xol ci biir Sénégal gisuma ko man Kaliphone maa leen wax loolu barki alxuraanul karim amul amul ku ko gën rafet xol amul ku ko gën a doon jullit amul ku ko gën a tabe amul ku ko dàq liggéey ci biir Sénégal liggéey rek la gëm Sénégal rek la gëm du matin au soir du nelaw mu ngi xool dëkk yi nga xam ne ñu ngi si coow gi si diaspora bi nu ñu émerger Sénégal bëgg na ko def noonu moo tax mu lijjantil ñu tey ceer ku yeewoon tey Senghor ne ko Sénégal am na terre mu ne la c'est pas vrai c'est impossible parce que bu leen fàtte dix ans si ginnaaw lan moo ñu sonaloon ñun sénégalais yi ba ñu doon manifester di taal di toj kuy xamaj kuy xamaj courant buy coupé mënuñu woon sax tenir courant deux heures de temps ci Sénégal waxuma la sax ci àll bi mais dakaar te jamono jooju Abdoulaye Wade mu ngi fi woon kàngam la woon bopp la woon yoroon na ay milliards mais mënuloon lijjanti courant ba ñu dem di créer ay plan tàqal di ko jox ay Karim Wade ñuy wut ay mband gasoil ñuy dox ci dëkk bi président mag Sall ba borom bi toogalee ba mu ñëwee xuy xamaj bi la njëkk a lijjanti ba yenn dëkk sous région bi sax Sénégal lañ leen di jox courant loolu faw yàlla dimbali na. bu leen fàtte dix ans ci ginnaaw danga doon yore sa ñaari junni nga dugg boutique ne jaay ma butaan gaz bouteille pour togg añ ñu ne la gaz depuis un mois amut. ñëpp di wuti këriñ parfois sax ñu ne la këriñ amul nit ñi di wuti mat parfois sax ngeen baal ma pour bu nag yi lañ doon toggee añ loolu yàggul dix ans la si ginnaaw da nga doon yor sa oto ñëw station essence garé ne ko jaay ma essence mu ne la carburant a bana jeex na amul nga lee lu ñuy woote naan tëngeej moo am ak caaroy moo am bu ngeen dawee rang bi toll ba yëmal am si dëkk bu ñu doon wax dëkk boo xam ne mu ngi dox te loolu yàggul fii la ñu fekk en 2005 bi yàggul caaro yoon bi ba mu tawee camion sax mënul woon romb camion banlieue bi dañoo loor ñëpp sonn ba président Macky Sall ñëwee ba léegi wax leen yoonu caaro bi ndax rek taxi am na problème pour jàll wax ma la camion te boobu ma ne la camion da doon am problème jàll ii fii ma dëkk Cité Soleil bu xiinoon nit ñi dañuy déménager président Macky Sall dugal fi plus de quatorze milliards ñi jaayoon seen kër si tol soleil yépp rëcc nañ ko tey ndox bi bu ñëwee directement mu ngi dem géej ak yeneen ak yeneen ak yeneen tëngéej ngeen doon jóge donc pour dugg centre ville fii ci Dakar tëngéej huit heures ngeen doon jóge tëngéej treize mu nu fexe ngeen egg Sandaga bu ngeen ñëwee buntu Pikine bu ngeen ñëwee Diamaguène bu ngeen ñëwee postu Thiaroye embouteillage bi naan nii président Macky Sall ñëw defaral leen ay autopont Tëngéej ak Dakar doo ko def 30 minutes xool leen corniche bi VDN bi xool leen yoonu université bi ba mu ñëwee ba léegi mu ngi liggéey mu ngi tabax ñaata hôpitaux la fekk ñaata hôpital yu bees la fi tabax ñaata poste de police la fekk ñaata poste de police yu bees la fi tabax ñaata brigade gendarmerie la fekk ñaata brigade gendarmerie yu bees la fi tabax ak yeneen ak yeneen ak yeneen yéen ngeen ne gisu leen loolu liggéeyul yéen gisuleen loolu liggéeyul kan moo liggéey Sonko liggéey lu Sonko liggéey dem Sweet Beauté yéen yéen a torox yéen yéen bon bokk bon ànd ak bon di doxaale ak bon di dem ak bon yéen yéen a bon yéen Sonko lan la liggéey lu dul boo tappee Google bind usman Sonko ñu ne la Sonko Sweet Beauté loolu de lañu gis ci annales yi lu Ousmane Sonko liggéey pour un Sénégal meilleur ñu gis président mag Sall boo tappee Google ne lan la liggéey ñu ne moo fi andi ay autoroute à péage moo tabax stade yi moo fi andi terre BRT bee ngi noonu te bientôt incha allah TGV e sax mën na ñëw Sénégal liggéeykat bi yokku salaire u enseignant yi yokku salaire yeneen gars yi tabax jàppale ñëpp coronavirus bi ñëw mu yëkkati ay milliards dugal pour askan wi bu leen sonn jamono ji si ginnaaw ñaata milliards la génnee di def transfert ne askan wi bu leen di sonn ban dëkk moo koy def ci adduna bi jékki-jékki rek génne 1000 milliards ne séddale naa ko sama waa askan ban dëkk koy def si adduna bi wax leen amul amul dëkk buy def ba Amérique du jékki-jékki toog président Amérique ne je pense à mes citoyens je verse chacun cent dollars mosu leen am mosut am président day toog xalaat ne dëkk bi parfois dëgër na mu ne facture courant bi ren wàññi naa baadoole bi daan fay 10 mille bul sax fay te pétrole ak bees gaz bii di ñëw dina ko calculer ba nga xamante ni sama classe bi néew di doole bi di fay facture vingt mille mën nañ leen leen kër gratuitement dootu leen fay patron yi di fay ay téeméeri junni nag ñoom mën nañu fay parce que am nañu les moyens mais sama classe bi borom juróomi junni yeeg borom trente mille yi pétrole ak gaz yi ñëw ak président ma Sall yéen ñëpp dina leen dootu leen fay dërëm Sénégal di neex ngeen ne kooku kan moo liggéey moo liggéey ngeen takk rajo yi di tëb rek di yuuxu rek Kaliphone est bloqué Kaliphone est bloqué Macky Sall ku bon la andi na Kaliphone Sénégal Kaliphone mënatul dellu Paris patati mais quoi pari ñaata at laa nekk biir Sénégal xaw ma fuy pari trent cinq ans laa def Sénégal ba may am sama trent cinq ans laa doog dem Paris ma def fa ñett at ak lu teg defuma fa sax dix ans defuma fa sax cinq ans mais c'est quoi Paris yéen la Paris tiital yéen vous restez là Paris dégage Paris dégage ndeke yéen ñëpp yéen a ngi langaamu ñu dem Paris yéen waa Ousmane Sonko yi vous foutez quoi là-bas ñibbisi leen France dégage te yéen a ngi foofu di laab tubaab yi France dégage yéen a ngi foofu di seeg màggatub tubaab yi yéen yéen a ñàkk jom musuma gis nit yu ñàkk jom ni njabootu Ousmane Sonko ñooy toog France dañ leen di nax France dégage koo si gis ab màggetu tubaab boo xam ne biir bi toll nañu tëngéej moom lay seel ñoom ñëpp nag seen jigéen yi nekk si internet bi naan Sonko fi mën koo si gis du la présenté jëkkër ni ku ñuul xale bu ndaw amut barki alxuraan xamante nañ génne leen seen jëkkër yi ñoom ñëpp abaset ay tubaab yi màgget tubaab yoo xamante ni waa Paris xale yi soxlawuñu leen seen bagage yi nii lay def nii xale yi soxlawuñu leen yéen ngeen ñàkk seen bii peeru ñàkk jom dem immigré ji waroon a raxas ndab wala fobeere am li ngeen am ñëwaat dëkk bi investir ngeen topp tubaab yoo xamante ni seen bagage yi lay def nii nii kañe yooyu ñooy toog si internet bi naan Sénégal dafa métti jële leen fi Macky Sall Sénégal dafa dëgër Sénégal dafa dëgër te tubaab yooyu ngeen nekkal ñii ñu ngi jaay ay carottes tubaab yi ngeen nekkal ñii ay chauffeur camion lanu yéen a torox même bu ngeen tukkee du ngeen tekki booy gëm seen bopp yi tukki dem foofu ñiy jàng ñëwaat ci dëkk bi fii doon ay directrice ñiy yore ay bagages lijjantiwuñu tubaab yi faalewuñu tubaab yi yéen nitu Ousmane Sonko yi toog ci réseaux sociaux di ubbeeku yépp yéen a bi weerante xuuxaan tubéy ñoom ñii di liveal Ousmane Sonko muy jigéen yëpp nañ toog si internet bi ne Kaliphone man de maa ngi nii sama alaaji Astafa la tudd barki yonent bi amut ay màggetu pa ña ca OSR ñeesa sa côté beeg borom baqate yeeg yéen yéen a forox yéen yéen a tilim yéen yéen ay toog di naan da ngeen di wax sénégalais yi sénégalais yi ngeen di xeexal xeexal leen seen bopp libérez-vous d'abord wut leen ay jëkkëru sénégalais yu diñ wala ngeen wut sax ay jëkkëru tubaab yoo xam ne ay jantal booy lanu mais ngeen dem wéeru ci ay màggatu paa yoo xam ne xale yi France yi bool paa yooyu buñ leen leen séeri ñu porte leen plainte ndax jeexal nañu tubaab bi docteur bi consulté na leen li mënatul def nii nii rek nii seen anaconda yi mënatul def nii nii rek las moo tax da ngeen di jël seen temps yéen jigéen ñi toog quatre heures de temps di fen rek di fen rek di fen rek c'est parce que seen yambari nii bu ngeen amoon ji aas bu am bu baax bi du ngeen tal une minute toog si réseau sociaux yi di wax ñii di say ñu ngi say nice mais yéen fu ñu leen gis ku leen xool yaakaar ni yembal ngeen dëkk yéen a sonn xool leen nitu Ousmane Sonko yi muy jigéen ñëpp nag ñii bu seen kanami timpi tampawul ñee seen lex yi mu ngi def nii ñii seen euh, euh, euh, je sais même pas seen ndoxu cité yi mu ngi génn mu ngi ni manifesté wu yéen seen dund neexut même nekk seen nekk bitim réew ñii ca Belgique ñii ca France ak ñii sa Darman Turquie ñii ca italeeg amul ku dundam neex feeñut ci yéen amul kuy toog sanse ngeen ne ko kii wu macha allah kii maa ngi koy ñee tarkalla kii mu ngi rafet amul ay nit yu forox yéen a topp Sonko nit yi gëm seen bopp yi amul kuy toog si Facebook bi naan Sonko c'est le meilleur nga daagu noonu dugg Amérique dof boobu sulaar boobu Ousmane Tunkara nga xam ne tekkiwul dara dem ba tey def 35 ans Amérique mënul jëndal ndeyam ardoise bu baax yaayam ca Kédougou 35 ans di martaatu Ousmane Sonko yaa ñàkk jom Ousmane Tounkara paa bu toll ni yow def sikkim am juróom-ñett doom Sonko di sa morom sët Sonko projet bi Sonko projet bi yaa ñàkk jom yéen yéen yéen yéen yéen yéen a ñàkk jom xool leen yeneen liveru Ousmane Sonko ci internet bi ngeen xool rek photo rek ngeen génne ne kii il est clean cerveau lay waxe intellectuel la day sañse amut koo si gis ñii ay rasta yi ñi seen cicatrice yi moo deeg yéen da ngeen a torox Ousmane Sonko amul ku ndayam sëy biir kër baayam di ànd ak moom bu dee ba ngeen dégg ay nit yu yàlla teg nattu rek ñoo topp Ousmane Sonko mais ñi seen ndey ñaanal ñii nar doon dara ëllëg doon cadre doon ay wàcceekatu conteneur ci dëkk bi doon naan immeuble bi étage bi huit wit bi kiyee ko moom amul ku siy taxaw Ousmane Sonko ci internet bi amul fan ngeen di xamee amul leen ñaanu waajur bu Sonko wootee ngeen naan aca seen bee woote ngeen dajale seen li ngeen laab tubaab ak li ngeen defaral seen tubaab yi ngeen dajale yépp yónnee Sonko jamono jooju seen nday yee ngi torox di dëkk si ay mer gàddu yéen yéen a ñàkk jom yéen nga naan man ngeen di yéen da daawaati jéeg vous êtes plus de cinquante et quelques personnes vous parlez sur benn Kaliphone et maa ngi leen di të ñii ngeen di amal ay pièges ñii ngeen di amal ay ñaawteef pour teg ko ci internet bi man mënu leen am man sama ginnaaw kalang du ma tox du ma naan du ma vagabond jéem ngeen lu ne pour tilimal deru Kaliphone comme ni ngeen ko defee yenn nit ñi doon taxaw président Macky Sall ci réseau yi léegi déggatoo leen parce que yéen leen fexeel moo tax fan yi ngeen toog gars yi kaa leen ñu songandoo Kaliphone il est bloqué il est bloqué il est ngeen di fecc di tëb waa man même si j'étais bloqué mais fier la je suis chez fi ma dëkk Sénégal fi ma nekk nii kër gi fayuma luwaas sant suñu borom yéen du bloqué wuñ leen mais munu leen dem munu leen ñëw am na si yéen ñoo xam ne def nañu 30 ans ñëw nanu mer gàddu sax jandaluñ ko seeni ndey kon yéen ñu bloqué leen sax gën après bu ko defee ngeen dañ maa bloqué mënu maa andi dara c'est parce que Ousmane Sonko dañ ko bloqué mënul dem sax Gambie picc bu laq si taat day bëgg morom ñu naan Californie est bloqué di fecc di taasu di wëy léegi deux jours tey ngeen xëyaat neen Californie est débloqué Kaliphone est débloqué Kaliphone jox nañ ko passeport mais montrez ces passeports là montrez-les mais man c'est quoi passeport lan mooy passeport loo xam ne kayit la man li ma am moo gën fuuf passeport mooy yor naa xol bu rafet li ma am moo gën fuuf passeport mooy am naa gën gi mbindee sallallahu alayhi wa li ma am moo gën fuuf passeport mooy yàlla def na ma jullit c'est quoi passeport da nga dégg nit day dee ñu sóolaale ko passeport am luy passeport yéen la passeport tiital da ngeen dégg passeport boo ko amee sa poche bi day fees xaalis da nga dégg passeport boo ko amee boo toogee xoola malayka kay day ñëw di la dar c'est faux passeport document la booy def sa poche pour voyager ba may dem di voyager est-ce que da ngeen ma dégg Kaliphone am na fi passeport te dem naa voyager man je peux voyager sans passeport diplomatique bu ma ko amee jël nag bu ma ko amul duma si rey sama bopp parce que sama papa sama yaay dund nañu ba tabax seeni kër xamuñu luy passeport diplomatique ay nit ñu ngi Sénégal fii musuñu teg seen tànk ginnaaw jam ñaajo tabax nañu ñett immeuble xamuñu luy passeport ngeen bëgg jël passeport naan way kii warul am passeport bu amee passeport way patati yéen man li ma am moo gën passeport nee naa leen am naa yàlla am naa yónenteem lu may doye passeport bu ma ko amee jël bu ma ko amul lu ma tax a dee xanaa xamu leen ki ngeen di waxal kon de yénde booy daaf ghetto bi la booy xaal pulaar bi luy passeport loo xam ne bu ñu la ko mayee ba may date bi day doon dix ans wala mu nekk cinq ans wala mu nekk huit ans man ma dund presque quarante ans awma luy passeport bu ma ko amul day tax sama vie changé bu ma ko amoon it lan lay apporter si sama vie te ngeen dégg nit boo amee passeport après moonin bi day jóge si gabi si banque bi di daw di dugg si poosam mais yéen yéen yéen a yenu passeport luy tukki Kaliphone mënul dellu mënul dellu ñaata sénégalais nekk si dëkk bi di dawal saret taq nañ si seen soxna am si seen i doom dugal seeni doomu école xamuñu luy tukki ñaata sénégalais ñoo demul bitim réew nekk nañ fii am ay immeuble du jeex bitim réew lu fa nekk léegi yéen a ngi fa maa ngi fa y'a rien yéen a ngi foofu bu amoon dara du ngeen toog ci internet bi vingt 24 heures sur 24 di ubbeeku comme ay béy bu amoon dara da ngeen di dem job mais yaa rien am na ñoo xam ne ñu ngi foofu sénégalais yoo xam ne da ngay yeewu ñu ne la may ma lu ma ndékkee gis naa si yu dul jeex am na sénégalais yoo xam ne ñu ngi fanaan ci ay gaar gis naa ko yu dul jeex. am na ay sénégalais yoo xam ne bu ñu duggee train amuñu lu ñu fayee ticket train dañuy burle am na sénégalais yoo xamante ni ñu ngi foofu pour ñu toog cigarette dañ la ne mon frère amoo amoo mégo donc c'est quoi tukki tukki taxul nga tekki nit mën na nekk ci biir dëkkam tekki man Sénégal fii ñi ma xam dëgg xëy na nag ci internet ngeen ma gis ñi ma xam dëgg xam booy bi gëm boppam la def gëm boppam daan naa dem ba Saint-Louis di senegal ndar di jënd ay jën muy ñoom dem ak yeneen i yaboy guddi bi ma teg ko si njaga njaay andi ko fajar bi ma jaay ko daan naa dem fuuta jënd ay saaku ñebbe ki saaku pataas taxaw marché Gueule Tapée bu parcelle bi sotti ko naan kilo pataas fanweer kilo ñebbe ñeent fukk di def nii clients yi di ñëw di jënd xamu leen booy bi de kon dama dawal taxi xam ngeen taxi dama dawal taxi yóbbu naa client tooba client Fouta Mbour Saly dakaar Mariste fii ñi fi bëri tey école Mariste ay jeunes yu doon jàng ñu ngi may seetaan tey ñii ay directeur lañu ñii ñu ngi bitim réew maa leen doon yóbbu la matin ñu jàngi andiwaat leen midi ñu añ ma delloo leen 14 heures jëliwaat leen 16 heures et demi ñu ngi may seetaan ñu bëri dañ may woo ne ma Kali est-ce que tu me reconnais maay directeur sàngam maay yaa ma doon yóbbu ba démb si mujj may dawal taxi ñi ma xam dëgg xam ne dama doon taxaw Dubai port World bii chargé conteneur ñaari quarante pieds wala euh, excusez-moi ñaari vingt pieds wala benn quarante pieds dawal mille quatre cent kilomètres ba Bamako samay apprenti ma doon àndal am na ñoo xam ne ñu ngi en live bi boobu bu may romb ma yi si yoon bi bu ma fi départoon dix-neuf heures dawal yoonu mbuur bi di dem yoonu kawla bi boobu jamono yoon bee ngi amoon ñagas ñagas yeeg kafrin beeg Koungheul ñoom malam naaneeg malam adaarak Koupentoum ak jaar noonu Balaak Tambacounda Goudiri Kidira frontière ma gaare ñëw poste douane joxe balise bi parfois ñu jox ma balise port ma duggu bu ma duggee dem kaay si scanner bi ñu scanner bu ma sonnul ma tàllal ci yoonu lambatara bi nga xam ne da ngay dawal sa camion ba si kanam camion bi arrière daanu noonu laa ko doon jaaree deux heures trois heures di matin da ngay daw nii la yëg mais léegi defar nañ sax beneen yoonu yoonu Kédougou man bi may dawal camion yoonu kéedugu bi amul gars yi laa doon jaar ñoom jéema ci dibiteri ba may daw moo tax bu ngeen xamul booy bi gis leen ko ni rek si internet bi fi ma jaar seen papa Ousmane Sonko bu fa jaaroon day des fi ma jaar seen baay Ousmane Sonko bu fa jaaroon day des nga toog di dawal mille et quelques kilomètres yenn parfois ngay dem quarante tonnes ceeb parfois nga teg quarante tonnes ciment soo ko sim di daw ci àll bi ngay dem ay kati minuit ngay taal sa camion sañoo dawal camion bëccëg minuit ba six heures du matin kati ñoom ñoom ñoom ñoom Moriba booy retourné waat nga chargé xeer yooyu nga xam ne ay minerais la andi woon ko kappa ñu déchargé ko dugal ko ci ay conteneur chauffeur camions yi xam nañu booy bi mais gëm sama bopp jóge si noonu ñëw si njaayub téléphone bi loolu moo andi Kaliphone Kalidou laa tudd di nekk si business téléphone bi Colobane Patte d'Oie case ba parcelle lépp rek bañ di ñaan bañ di sàcc ngeen ne booy bi di ngeen ko coow <laughs> da ngeen a baax rek da ngeen a gentil man sama wërsëg dama si jot léegi tey toog ngeen seen ay Babacar Touré seen ay Tunkara yéen ñëpp ngeen di live yenn journaliste yi tamit di ma woo Kaliphone on va des interviews ma ne non man ak yéen daf ma ak yéen nen waaw man duma ministre yi wala député yi nga xam ne dañ leen di xam dañ leen di xeex ngeen di ñëw di leen tàllal seen micro ñuy wax amatul journaliste bu mën a am Allo Kalifane amatul moo tax ñi ma si woo fan yii yëpp dam leen rejeté parce que sa musiba rek lañ la bëggal amul journaliste bu bëgg Kalifane amul. bu ministre Macky Sall yi xamee woon ni noonu ngeen leen bañee noonu lañ leen di rejeté bu directeur Macky Sall yi xamoon ne noonu ngeen leen bañee noonu lañ leen di rejeté xool leen barki démb bu Ousmane Sonko ba muy def point de presse ay journalistes yoo xam ne dañoo ñëw farankulaay toog def ay tànku neen mel ni ay taalibe si kanamu Ousmane Sonko Sonko bu ñëwee di def ak yéen point de presse mu waroon leen jox ay fauteuil yi ngeen toog joxu leen fauteuil mu waroon luwe ay chaise ngeen toog ngeen waroon ko wax monsieur Sonko où sont les chaises defu leen ko dem leen image yi mu ngi ci internet bi ñii mel ni ay béy toog di jàkkaarloo Sonko di photo di tàllal micro. Sonko boo xam ne sañu leen ko ne Sonko noo tudd du leen ko may joxu leen cër joxu leen respect ngeen di daw ci ginnaawam. loolu mooy tey journalisme Sénégal tele yoo xam ne du matin au soir fu ñu toog ay nitu Ousmane Sonko la ñuy woo. sonko nii sonko naa dëkk bi doxul dëkk bi naa du ñu mës a invité kuy ne dëkk bi doxul déedéet kuy dëkk bi doxul rek ay Pape Alé Niang ñi doon naan ay journaliste di fenn sonko attention dañ lay waaj a faat sonko attention Macky Sall complot na ak France patati patata ay waxu dof yu daanu si saret moo tax dof yi ngeen mën a manipuler mais du sama genre bi nga xam ne dañoo mbappat ay kàngam yu dawal taxi dawal camion jaay soble jaay yéet jaay mbaqu sa lépp laa def moo tax gis leen booy bi nii rek gis leen booy bi nii non ñi ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dañ may woo parfois ne ma Kaliphone ñii xamuñu la mën nga leen jaay coob seen njëkk romb leen nii xamuñu ne jaay nga leen ma ne waxal de ci banlieue laa juddoo yaroo banlieue màggee banlieue ñaari yoon laa dem Fuuta xam nga Dakar rek moom boo fi juddoo rek yàlla dafay def nga am xel waxuma laa nga dëkk ci banlieue boo xam ne précarité bi fii lu ne lañ gis moo tax bu ma gisee waa Sonko yi naan wa yi bu ma la gisee buñ la gisee bi ma tegee sama tànk Sénégal ba léegi maa ngi dali foor ba bu ne ma wax leen ko ma dëkkuma hôtel dëkkuma Mariste dëkkuma Patte d'Oie dëkkuma fen maa ngi dali fort fii bépp mbindeef bu Sonko gënal sa ndey wala sa baay ñëwal kër ñam kalifan nga ne Kaliphone yow laa ñëw pour dóor ndax benn Ousmane Sonko nga xool ndax duñu la tàggee amul sax demal ñëw yéen moomu leen nit ñi moomu leen dëkk bi ba benn nit bu bëggee wax Ousmane Sonko du doon président di tiit yéen bu ngeen xoolee xam ne doomu cuballo bi tiit nekkul ci moom dee bi benn yoon la man saa baay dee na saa ndey dee na damay dee loolu dama ko def sama bopp day ñëw kay nga dema Kaliphone tépp rey naa la nga dee pour nga arrêté di wax si Sonko ça j'accepte mais Kaliphone ñëw naa pour dóor la no non no non dang may faat boo ma faatee de mooy dóor nga ah, loolu moom j'accepte moom moo tax bu ñu toogee ma dégg yenn soi-disant journaliste di ubbi seen gat yi di wax naan wéy dañ ko bëggoon dóor kolobaan mais des centaines de personnes si benn Kaliphone xanaa nag léegi man héros laa de centaines de personnes ñoo buggoon dóor Kaliphone nga demit à APR des journalistes ñoo buggoon door Kaliphone doo dégg ñu ne benn journaliste de wala ñaar de les journalistes wala les caméramans ñoo buggoon dóor Kaliphone ci benn Kaliphone ngeen ne da di sot da ngeen dee di ngeen mer di sonn réew mii saa réew baay la sama baay dafa bokkoon si ñi demoon guerre xeex ba Sénégal nekk Sénégal ma wax leen ko loolu tey nag kenn ëppalewu ma faran ci biir Sénégal si laay toog bés bu ma bëggee tukki ma génn dem tukki bu ma bëggee ñëwaat mu ñëwaat amul blocage amul passeport amul leneen bu ma amee diplomatique nag damay jël de ça je vous le dis mais dégg ngeen Babacar Kewlo mu ne leen way Kaliphone euh, il va sortir dans quarante huit heures quarante huit heures yaakaar naa ni tey c'est lundi demain c'est mardi mercredi bu neexee sunu borom samedi wala ajjuma dinaa toogaat sama lal bii ci Dalifort ne leen uye Babacar Touré mu c'est quarante huit heures pour ngeen xam ne seen nit ñi dañoo mën a fen dañoo mën a duul jëli ji ay filiation xam nañ ne Kalidou laa tudd xam nañ ne Baabali nekk sama nom ñu dem coller seen i affaire ñëw génne ay numéro naan woy c'est le numéro de son passeport mais nañ leen woon photo c'est le numéro de son passeport mais passeport kay day am photo nit passeport day am ñu bind si République du Sénégal passeport sangam-sangam mais ana loolu ñu toog naan leen way mu ngi nii Kalidou Ba mais man nëbbuma kenn que suis né en 81 euh, xam nañ ne 81 ak léegi 40 ans la xam nañ ne Kalidou laa tudd wan naa leen barki démb sama livret de famille si loolu la nu gis sama livret de famille parce que nii dañoo mën a fen dañu mën a fen dañu mën a fen man man man man vous mentez vous mentez vous mentez vous mentez comme des renards da ngeen mën a fen fen seen deret la barki démb ba may live te ñu ne ma woon ci seen live katu Ousmane Sonko yi ñu ne Kaliphone amul jabar France ak dafa dem mairie France ñu rejeté ko waaw mairie France bu la rejeté dina la jox livret de famille mairie France bu la rejeté dina la jox sa livret de famille mairie France bu la rejeté dina la jox lii livret de famille lii lii léegi barki dem ba may live laa leen defal nii nii laa leen defal nii nii excusez-moi ok xaar ma pose lumière bi nii tuuti ok barki dem ba may live maa leen ne nii comme dañoo ne mairi daf ma rejeté ma ne leen lii laan la du mairie de Poissy lii laan la république française arrondissement Saint-Germain en Laye lii lan la département des Yvelines pour yéen niti Ousmane Sonko yi toog si biir internet bi di duulal Kaliphone di fenal Kaliphone man j'ai ma mu ngi seetaan live bi lii maa ngi nii xanaa nag bu ma mairie rejeté woon lii lan la du livret de famille xanaa du ngeen ne lii maa ko defar comme ne ngeen ay faux document la yorak yu kenn xamut liir leen jël leen lépp après ngeen capturé dem préfecture bu Paris dem armée française dem lépp lii laa la du livret de famille léegi lii laa leen defal barki dem ba livret de famille mu ngi nii mu ngi nii ngeen liir li mu ngi nii délivrance du livret de famille livre de famille est remis par xawma lan par l'officier de l'état civil patati patata ma ubbi nii ubbi nii ubbi ba def nii nii nii laa leen woon barki démb Kalidou Babali époux du père ma def sama kii Dakar Sénégal sama kii a ngi nii nee la 31 octobre 81 lii de la gars yi gis dem tak feni mu ngi nii mu ngi ni sama papa ak sama yaay sen sant ngi nii yen ñi mën a liggéey liggéey leen lii de la ñu gis ñëw di fen dem defar seen i affaire ñëw génnee naan way numéro passeport bi c'est un deux trois quatre c'est cinq six sept huit mais passeport dafay am photo génne leen passeport diplomatique comme ni ngeen ne gis ngeen passeport vous avez tout de Kaliphone sortez passeport bu état jox Kaliphone boo xam ne am na photo bu ñu def Kaliphone xanaa man sama ma gis xàmmee mais arrêtez de mentir arrêtez de fen arrêté leen bàyyi leen seen feni bu ngeen amee passeport bu xam ne da ngeen di koy ñëw teg ci internet bi ngeen gis ñu bind si république du Sénégal Kalidou sangam sangam ngeen gis photo Kalidou sénégalais yi daal di gëm ne que état jox na ma passeport diplomatique. mais seeni ay duul créé ay kii nga xam ne tey boo demee sax ordinateur mun nga bind Kalidou nii numéro passeport kii loolu ngeen di wane passeport kay talon la talon def nii sama passeport bi moom mu ngi nii. lii de am naa ko bu dee lii nag si diggante bi nekk na nekk na diplomatique alhamdulilahi rabbil alamin di lii lii de la am comme passeport yàlla na seen ñaan nangu nag passeport boo amee day def nii am tur am sant visa ya mu ngi nii te du toog fi sax di wane ngeen ya ngeen di dee seen xool di métti di bon am na si yéen ñoo xam ne amuñu sax kayit juddu bay am carte d'identité bay am passeport si yéen ñi yor xol bu bon bi du ngeen ko mës a am ngay kay def leen vidéo def live ne gars yi Kaliphone passeport diplomatique am a ngi nii ngeen def nii ubbi ne photo Kaliphone a ngi nii Kalidou sangam sàngam après sénégalais yi gëm mais ngeen dem di takk rajo yi di fen naan Macky Sall jox na Kaliphone passeport patati mais même bu ma ko joxoon dama koy sant dama koy gërëm bu ma ko joxoon c'est juste pour dem voyager passeport diplomatique mënul yóbbu nit àjjana passeport diplomatique mënuñu la ko jox nga dem si gab bi nga bës bu bouton xaalis génn passeport diplomatique mënuñu ñu ko jox nga jékki-jékki bëgg a gis sëñ Mountakha Mbacké nga ñëw ne passeport diplomatique laa yor sëñ bi laa bu gis ñu ubbil la déedéet passeport diplomatique boo ko amoon ne 100 mètres la bu gis prisonniers luy passeport diplomatique kon pourquoi vous fatiguez les gens di sonal nit ñi di yuuxu di takk rajo yi di live parce que bu ngeen live si Californie y a des sénégalais yoo xam ne seen cerveau yi dara nekku si dañuy ñëw toog di leen seetaan ngeen di fecc di wëy parce que Californie la ñu bëggal toroxtaa ngem kaay leen déglu dañ ko bloqué vous avez dit depuis cinq jours Californie dañ ko bloqué tey ngeen ñëwaat naan Californie euh, a été débloqué mais sortez mbala ngeen génne vidéo boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport wala photo boo xam ne Kaliphone nee na si nii passeport c'est facile et eh, bu ma ko amoon it jël bañu ma ko de wax dëgg fa yàlla te seen ñaan it yàlla na nangu yàlla na ma dal seen ñaan yàlla na ma dal yàlla naa ko am bu ma ko amul duma si daw duma si jooy duma si tëb parce que du passeport moo may dugal ajjana du passeport moo ma mën a jox alal encore une fois di nga gis ku yor vingt passeport diplomatique si poosam amul lu mu ndekkee suba c'est quoi passeport ngeen bëgg sonal nit ñi naan rajo yi ngeen di tax président Macky Sall ni président mak Sall naa ngeen di toog di duul naan Kaliphone ba mu dem mairie dañ ko rejeté ku dem mairie doo am livret famille ku dem mairie duñ la jox certificat de mariage ku dem mairie doo am doo am doo am copie intégralité ak yeneen ak yeneen di ngeen dee man samay document mu ngi nii lépp mu ngi noonu ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca ba ca déclaration mu ngi noonu waaw ngeen toog di ubbeeku rek di fen rek waaw waaw ba ca déclaration impôt ya ngeen di fen rek di wax rek bëgg teg te ngeej bëgg xam Kaliphone lu mu añee tey bëgg nekk Amérique bëgg xam Kaliphone lu mu ndékkee mënul nekk man bu mu leen waxul sama vie mënul leen wax ba xam sama vie mënul booy bi ngeen amal affaire de booy Dalifort bi daaf ghetto bi xanaa ak excusez-moi waaw dégg naa benn fenkat pasteur sax nee na Kaliphone jabaram nii parti parta way am na loo xam ne sax kenn ko wone mais faaw ma wane ko am na loo xam ne bëgguma ko wane mais faaw ma wane ko suis obligé suis obligé waaw moo nekk nii dama leen koy won ngeen capturer lépp comme seen fenkat ñu ngi toog seen internet bi am na séquence bi may yónnee naan Kaliphone amul jabar mënul biiral xanaa seen bàyyi ñoo mënul biiral ngeen yaakaar mënul biiral lii lan la lii du identité de l'enfant nom de famille ak yooyu ba may ñëw dama jaar sax mairie pour def reconnaissance gis ngeen acte de reconnaissance république française pour sama soxna sax yàlla dafa def jigéen wérut la boo demee boobu jigéen wérut sa soxna da ngay def acte de reconnaissance mu ngi noonu acte de reconnaissance numéro sangam jël leen numéro bi ngeen dem ci mairie ba ngeen laajte gis ngeen Kalidou Babali date de naissance gisoo lii ak li ak lii gis ngeen Yveline gis ngeen dem leen mu ngi nii yéen da ngeen a baax lii la dem leen di koy won pour seen duulkat yi après nag bu leen leen rus ne leen ne ah yaa ne woon Kali mënoon na def acte de reconnaissance te xam nga ni France mënoo fa njuuj njaaj kayit yi mënoo dem ci mairie rek ne sama soxna daa nekk en état dama bëggoon def acte de reconnaissance pour sama doom incha allah rabbi boo ko yàlla may mucc sama doom judd foofu doon français parce que sama soxna française la dégg naa seen live nga naan Kaliphone mënoon na toog sax boo amee foofu doom parti pata lii de da lay koy won te lu ngeen bon bon bon bon bon bon xanaa rek bu ma amuloon fii dara ma mu réer bu ma yóbbee sama livret de famille yóbbu sama que sama doom bientôt foofu xanaa bu ma demee ambassade bu France bii rek wane sama lii ma woo sama soxna na ma yónnee carte d'identité mu envoyé ma ko ma dem ñu may ma visa bu bees poul parce que dëkk de droit lañ nekk France mais lu tax soxor doo dellu doo dellu doo dellu c'est pas la fin du monde du àdduna buy tukki dem naa boole nañu Kaliphone signalé nañu Kaliphone signalé nañu Kaliphone fii ngeen fi waxoon Kaliphone signalé ngeen ko mais bu ngeen ma signalé si lan ngeen di may signalé si lan exactement je voulais si lan ngeen di may signalé ndeysaan man yéen dama leen a yërëm man dama leen a dama leen a pitié dama leen yërëm dama leen a yërëm xam nga lu yërëm dama leen yërëm yàlla xam na ko nag dama leen yërëm parce que seeni ay fen seeni ay sos seeni ay mensonge dama leen a yërëm changé féexal leen seen xol yi yéen walaakaane yi yéen a mën a dem Belgique walaakaane yi ñuy dem itali yenn walaakaane yi dem Espagne yenn walaakaane yi dem France yenn walaakaane yi mel ni Tunkara nekk Amérique mais Kaliphone mënul dem France mënul dem Amérique mënul dem Japon mel ni seen baay ñoo moom France mel ni Pastef ñoo moom France non léegi nag xam nga man du ma nëbbu dara xam nga bu ma demee ba da leen di wan sama livret de famille maa ma xanaa maa sañ si yéen si internet bi kan moo ko sañ kenn kenn si yéen du génne livret de famille amul xanaa livret de famille nag mënu ma ko créer balaa ngeen naan euh, foo et usager faux la xaw ma lan ak lan est-ce que day ubbeeku sax ma xool euh, que document bi fii nu mel ci biir mosuma ko ubbi sax parce que lii kii la gisoo mu ngi nii bu bula lay doon ville de Poissy foofu laa dëkk dans le soixante-dix-huitième arrondissement livret de famille mairie état française ma dégg kaña bi naan ba mu demee mairie dañ ko rejeté waa mairie bu la rejeté dina la jox lii mairie bu la rejeté ndax dina la jox livret de famille mairie bu la rejeté ndax di nga ñëw nar a tegu si yoon parce que tubaab lépp droit la sa soxna bu nekkee en état da ngay ñëw nga reconnaître ne sa soxna bi état bu mu nekk yow la reconnaître nga sa doom muy am na trois mois ba ci kaw foofu ngay commencé boo amee ñetti weer jëm kaw nga dem nga reconnaître léegi kayit yi ñu la jox tey sa soxna buy mucc ëllëg jaratul ngay dem mairie ba ñu lay wutal bulletin de naissance lii hôpital nga koy yóbbu donc à partir de hôpital waa hôpital lii liggante ak waa mairie sa bulletin de naissance c'est hôpital bi nga koy jëlee loolu yëpp ñu wax ma ko ngeen soxor yàlla sunu borom moo namoon ne Kaliphone di nga dund bés dina ñëw di nga am soxna bitim réew sa doom dina fa judd ngeen ne déedéet lu ngeen ci mën te yéen ñëpp xam ngeen nit bu nekkee France am soxnaam nekk française yoon may na ko mu jox ko kayit yi loolu yéen xam ngeen ko bu dee sax soxor ngeen yoon it wax na leen nit même bu takkul soxnaam doomam rek nekk français yoon droit la mu am kayit loolu c'est forcé kenn mën si dara te ñëpp xam nañ ne France dëkk de droit la parce que sa doom dafa war a jege pàppam waru ñu mën a ne sama doom a ngi foofu papam mu ngi Afrique France nanguwuñu loolu droit dafa am foofu France nanguwul sa soxna nekk foofu yow ñu la naan dañ lay téye Afrique wala duñ la may visa France nanguwul loolu dëkk de droit la ngeen bon ngeen di wax si man rek di fen rek di teg rek sama soxna dafa kii sànq ndeysaan mu naan laisse-les là-bas les parler laisse-les parler laisse-les parler laisse-les parler am na nag ñu naan Kaliphone ne montre pas non man sa montre aw ma dara lu muy nëbb man recherché wuñ ma par Interpol jaayuma dorog yoruma faux billet waa parce fi ñoo yor seen ŋaam yi rek di fen di fen di fen temps bi ngeen am naan da ngeen di dem signaler Kaliphone te ngeen am temps boobu dem liggéeyi teral seen ndey ak seen baay bu ngeen nee da ngeen di signaler koo xamante ni yàlla mu ngi koy taxaw yàlla sunu borom ngeen di xeexal mën ngeen xëy di signaler seen oto ne teel bu ngeen demee police tey lan ngeen di signaler. way lui c'est un vendeur de yamba. police française bu ñu la xoolee xam nañu ne looy def si dëkk bi looy dugal di génn yëpp y a des de surveillance boo taxawee ci gaar bi caméra yi ngi lay xool boo taxawee ci mbedd yi caméra yi lay xool boo duggee ci bus yi caméra yi ñu ngi lay gis boo duggee ci train yi caméra yi ñu ngi lay gis France ngeen wax de ñu lay def ay fichier S ak fichier P yu kenn xamut at yi ma fa nekk yëpp bu ma police française zone recherché du yéen yéenay dem di signaler ci parce que ku ne am nga fa sa adresse am sa code postal waaw yéen xam ngeen France ngeen wax de xaw ma beneen dëkk nag xaw ma ban dëkk dew ma Italie dew ma yeneen mais xam ngeen dëkk France moom ak police francaise lu mu bëgg suba suba daf koy am mais topp leen wax ci di wax rek topp leen rek après ndem leen wane livre bi xaramoo naa leen ko baax demal nga ne il a même créé un faux livret après ngeen capture dem leen ville de Poissy te bu ngeen demee sax du ngeen a am accès si document jàmbur yéen xam nga lu ngeen waaw exactement xaar seen fen yëpp mooy bu ñu demee dinañ wax lii dinañ wax laa tubaab sa koo bokk ak ndey baay sax bu ñëwoon ne day vérifier sa accès fii ñu ne la déedéet bu ngeen bokkoon ndey ak baay lii pour nga amoon accès fii da ngay andi sa carte d'identité ñu xam ne yow la ñu may la nga vérifier mais boo bokkoon ak nit ndey ak baay mu xam say côté ak xam say lépp bu demee toog dañ koy ne monsieur vous avez pas le droit yéen xam ngeen foofu dëkk de droit la ngeen di dem naan damay ñëw signaler looy signaler tubaab muy police ak lu mu mënti doon sañul ñëw di ubbi sama dossier te tooguma yéen xam ngeen foofu yàgguma fa de waaye ab dëkk de droit dëgg la seeni xasawaay seen i ñaawaay bu ngeen di live di am seen i ay baqataak bu ngeen di live di lekk ay tolak bu ngeen di live da ngeen a xeeñ da ngeen a tilim du ngeen wane ful rafet dem ngeen ba ne néeg bii du sama néeg damay wër si ay néegu jàmbur di photo di sànce fii bu nekkul sama néeg lii lu nekk si néeg c'est parce que seen baay yi ba léegi si ay mer gàddu la ñuy tëdd kalifan ñëw di njeganaa yu fii si kanam tuuti ma ñëw ma tëdd nii dallu nelaw aisément loolu métti na leen parce que am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi tëdd ak seen yaay yi lal parce que xol bu bon foo gis ko am quarante ans 30 ans di bokk ak papam ak néeg ba léegi lal sa yaay tëdd si kaw nga lal mère gàddu si suuf parce que seen xol moo bon man sama néeg bi macha mu ngi yaatu tarkala mu ngi tarkala mu ngi yaatu gis nga ko mu ngi yaatu gis nga gis ngeen mu ngi yaatu xanaa na nit ñëw taxaw ne noonu néeg bi Kaliphone nekkoon maa ko ko luy woon ko abal da ngeen a baax rek lii c'est pas fait pour les euh, euh, chèvres wala pour les animaux wala les pour les je sais pas quoi pour doomu aadama yi c'est quoi néeg c'est quoi kër ñu toog néegam ñi dem bay live naan gis ngeen Kaliphone fu mu toog di sax néeg yu rafet yooyu du néegam kon rafet na macha allah lii la ñu am nga góorgóorlu as tuut di tëdd fu nooy waaw ngay dundul ajjana mais yéen lii si yi rek ngeen ko yéene ak yenn directeurs yi yéen walaakaane daal tëdd leen si ay pajaas rek ba xëy dee man du ma saar boobu nag aw dara nag mais bëgg naa sama bopp nag bëgg naa sama bopp de waaw waaw maa ngi nii de bëgg naa sama bopp leen sax aw ma mais maa ngi teen macha allah di sant suñu borom président Macky Sall laa àndal nguur mouvance présidentielle laa gëm incha allahu rabbi yi lu leen di déranger mooy Kaliphone la ñu gis mu nekk ci internet bi laqal lool Ousmane sunk on va tout faire pour casser booy bi on va tout fair pour tëj la booy bi parce que woo ngeen ma ba sama biir live vidéo yi ñu ngi fi ba mu leen nee au revoir bàyyi naa leen dellu naa sama kër baay ngeen naan bi sabali laa bul dem combat bi réel nga si komba bi ponkal nga si vidéo yi ñu ngi si YouTube bi du ngeen weddi ba tunkara bi tey naan way kooku nga xam ne tekkiwul dara tunkara ñaata yoon nga raam def taatu neen ñëw di dugg sama live tunkara ñaata yoon nga yëkkati sa téléphone di ma woo même ba may dal si kaw Ousmane Sonko premier danga maa woone ko sama frère maa ngi lay ñaan bul daw si kaw Sonko ma ne fii nitu Sonko yee ngi dal sama kaw ma dal si kaw Sonko kuy Sonko da ngeen dégg gën gi mbindeef la da ngeen dégg xut bu zaman la mujj bi ba nga defee sa vidéo yow Tunkara naan gis nañu benn xale di jaay réew waaye fii ku wane réew dama am condition ba deux mille vingt quatre da ma doon gaaruwaale sañu woon ma tudd ma génn ma ne la bu dee góor nga tuddal sama tur sëgam yow paa bu bejjaaw bi xobadaas bi yaa mën a am condition waxuma laa booy yi nga xam ne ñun wu ñu on est maigre maak yow du combat nga génn wooma naan gooy c'est-à-dire taxawoon may wax nga supprimer vidéo boobu man it ma supprimer vidéo léegi tey yaay bandi bandilu naan Kaliphone saagakat la tey ngeen xam ne ab saagakat la bi may nekk si yéen di saaga est-ce que mas ngeen takk rajo yi naan man saa yéen da ngeen war a sax rus toog seen Facebook naan insulteur public da ngeen war a rus di toog seen Facebook di ma tuddee insulteur public te jamono ci ginnaaw sept mois huit mois ci ginnaaw seen bàyyi ngeen ma defoon Kali le capot Kali le champion Kali le best lu ne laa dégg Kali le meilleur lu ne laa dégg bu may live ngeen di commentaire di reetaan Kali tegal Pa ñu ngi dee ngeen partagé ba Ousmane Sonko di toog këram di signe di fang rek naan boy bi il la le te tegal naa leen fi ay confirmation Ousmane Sonko daf ma doon bége di ma naan il la le mais ma bàyyi leen mu saf leen sàpp ba Ousmane Sonko keroog dafa def vidéo tegal naa leen vidéo bi mu ne nguur gi ñu ngi wax que éléments yi nekk si réseau yi que dañ leen di dal ñoom moom Ousmane Sonko lu muy daj. waa nguur gi dajuñu ko si pression parce que boobu mu ngi gis ñoom Kaliphone di ko dal mu tiit teg na ay junni nit branche ay kàcc-kàcc ay tunkaraak ay Babacar Fa Touré ay Pape Alé Niang seeni Amazon yeeg seeni dëmm yeeg yéen ñëpp ñu roose leen teg leen ci réseaux sociaux yi pour ngeen di wax lu ñaaw si nguuru Sénégal mais saful nit ñi mais benn Kaliphone mooy genn wax ngeen di métti lu di mer man est-ce que mës naa génne di wax si yéen c'est pas votre temps pourquoi vous sortez du matin au soir vous parlez de Kaliphone am Kaliphone indi Kaliphone TikTok Kaliphone Facebook Kaliphone YouTube Kaliphone Instagram Kaliphone c'est euh, pas ça vous dérange di dee maa gën a wow xeer gis le ma rek mayub yàlla la don la fu ma waxee ñu déglu ma te musuma leen wax tegal leen ay fen te loolu ngeen bëri le seen kaysi foofu yeeg duul la ñuy def fen rek seen Mollah Morgun gëni duul rek la ñuy def fen rek Ousmane Tounkara fen rek seen yaay maam seen moom waxi noppi moom moo dàq duul ñëpp ay fenkat ngeen am ci internet bi Kali musul def video ñoo fenal leen amul j'ai pas ce temps c'est pas ce temps li may live ak Adji Sarr métti na leen parce que kali ngay gis mu jël Adji Sarr ci internet bi aji Sarr dañ ne ma yor bu ma ko génnee àdduna tukki amul journaliste bu sañ a interview aji Sarr may aji Sarr fu mu waxee loolu que yor na ay anaconda wu Ousmane Sonko amul kon da ngeen di dagg parti boobu ñemewu leen ko moo tax chroniqueurs yi bëri tey favorable côté Ousmane Sonko waaw mais man maa ñeme bu ma neexoon léegi damay woo aji Sarr léegi mu décroché ma ma ne la nuyul sénégalais yi mu wax léegi léegi ba démb si guddi sax si TikTok bi ba gars yi ne Kaliphone dañ ko bloqué dañ ko ba Adji dafa dugg di reetaan dinaan Kali doo dellu France di ma mbalak ma koy tooñ ne ah Adji léegi sama noon nga ñuy ree tey suba ba mu may woo loolu la wax ne ma Kali démb dama ree ba sonn loolu moo leen métti Kaliphone day wax ak Adji Sarr Kaliphone xam na secret Ousmane Sonko nu mu doon màccee chocolat yeeg pasti yeeg nu mu doon juutalee aji di ma ko wax may dem këram parfois ma ko yóbbul pizza Adji saar mu may gis parfois dama koy namm ma dem jox ko pizza mu coob parfois moo ma ne qualité pizza laa nam ma dem séeréer la sama jaam la xam naa ne mu seetaan live ma koy bége bu baax di nit di taalibe moo tax munu leen ko yàq ba mu génne fii ne Ousmane Sonko mii def na ko naka sudul noonu gis nañu seen dëmm yëpp génn ay kaaneek ay tolak ay limon ak naan aji saar dina dee dina dee dina dee ba léegi mu ngi dund ba léegi mu ngi dund ba léegi aji saar a ngi dund dee bu amee si seen ay membre ñoo dee parce que nit ñi tey ku ngeen yéen a dee rek yàlla ji autoroute à péage la xaaratul ba suba yéen da ngeen yéene nit ñi ñu dee yàlla di leen faat yéen benn par benn sénégalais di gis waaw ngeen toogee naan Kaliphone bit na live amul connexion man maay connexion mais ñu toog instant bi politique amul élection sori na ñu topp di live di wax rek du matin au soir amuñu sa temps instant bi dañu nekk di dallu bu ko defee ñu ngi waxtaan suñu biir ñu ndaw ñi bu neexee suñu borom xool nu ñuy tegaatee son excellence monsieur le président de la république ci bopp réew mi 2024 2029 incha allah si lool la ñuy dox amuñu jot xuloo amuñu jotu xeex Sénégal nag dëkk de droit ku yaakaar ni bàyyi Ousmane Sonko moom réew mi ba da ngay gis nit na danga nga koy jam wala da ngay gis nit danga koy message dinaa la rey wala da nga koy gis nit di ko di ko xoqatal na ko nit jéem tey jii de ñiy tëdd si jeel bi genre soi-disant force spécialiste yooyu bu démb doon tey du ñu nekk ay force spéciale parce que fu mu ne nee seen ndey ñooy sonn rek ñooy yóbbu ay añ Ousmane Sonko ngi noonu tëdd këram di tëdd ak ay soxnaam di tëdd fu nooy yéen soi-disant force spéciale yéen a ngi noonu di tàncante lu ko fi jar man kay bu may def force spéciale damay nekk force spéciale diine gi bu doon am na ko buggoon taal diine gi tey xeex diine gi ma doon force spéciale ma rayante bu ma dee sax dem ajana mais force spéciale Ousmane sonk pour lan te jamono jooju Ousmane sonk ay doomam yi defuñu force spéciale mbokk Ousmane Sonko yi defuñu force spéciale yéen wala kaane bi amu lu ngeen lekk amuleen lu ngeen naan ngeen naan da ngeen nekk force spéciale dina leen wexxaat Tunkara moom li la dal daa métti je te comprends nag moo tax nga dégg tey Kaliphone passeport diplomatique ngay jooy di jooy c'est parce que sa yaay bu dee woon suba sax mënoo ñëw jaale ko yaa ko teg sa bopp ndax benn Ousmane Sonko Ousmane Sonko rek bu yaayam génnoon àdduna suba Casamance day dem jaale ji ko ñu suuli ji ko mais yow Ousmane Tunkara sa yaay boo déggoon suba def na malaise dee na loo yor-yor milliard doo ñëw toog sa wetu yaay gis ko dernière demeure na yaay jébbal naa la borom bi loolu lu ko gën a métti ci kaw suuf lu la ko jaral Ousmane Sonko yaa ñàkk jom moo tax ñu naan jur doom du yaradal jur doom bu tekkiwul dara mooy yaradal li la dal mooy ak ay Mollah Morgan yi Mollah Morgan bu ñu tàggee woon baayam suba fële lay toog réew ma di wax ak seen waa kër téléphone naan fu ñu koy suulak ak fu ñu koy suul doo ñëw taxaw sa wetu bàmmeelu baay ñaanal sa baay ne yàlla na ko borom bi gàttandu ca ajjanay kaweer yéen a ñàkk jom lu leen ko jaral Sonko subhanallah di ngeen dee di ngeen dee yéen ñëpp euh, kii nu mu turati euh, euh, ñii di saaga bu leen leen di tontu damay bës nii rek bloqué leen bu ngeen leen tontoo rek du ma gis seen saaga yi ko saaga rek dama koy bloqué mu dem comme insulteur public lañ may tuddee yaakaar naa ni wax naa sama soxla boobu ba léegi te saagawu ma fi nee naa leen sant leen gërëm leen kilifa yi comme yéen da ma tuddee insulteur public yéen da ngeen di commentaire di saaga nit ñi nit ñi di ko gis mu leen di neex fu ñuy waxee Kaliphone ci internet ngeen dugg foofu di commenter di saaga mu leen di neex mais kalifan bu saaga yaayu Ousmane Sonko ngeen naan subhanallah mel ni yaayu Ousmane Sonko moo gën sunu ndey ñun ñun sunu yaay yi ay fin d'affaire lañu yaay Ousmane Sonko mooy jamaa bi loolu yéen la seen yaay ay përëm lanu yaay Sonko nekk jamaa mais ñun suñu côté suñu nday ay jamaa lanu yaay usmaan Sonko doon fi ndafeer bi man bo man bu ngeen bëggee ku jox cër Ousmane Sonko yaayu Ousmane Sonko da ngeen di jox cër yaayu ñëpp rawatina man sama ndey bi nekk àllaaxira lim leen wax lu leer nañ la daw si gàddiw si gis naa yenn seytaane waa jooju xaw ma naan élément Bart def benn vidéo naan subhanallah dama dégg vidéo bi Kaliphone lu mu wax yaay Sonko ah da dégg Kaliphone lu mu wax yaay Sonko élément Bart te nga nekk ci internet bi di gis ay Ousmane nitu Ousmane Sonko nu ñuy saaga yaay Kaliphone te loolu mu ko naqarlu aha ma fayu ngeen naqarlu loolu yéen daal yaay Ousmane Sonko malayka la jamaa la yéen saaga leen ndayu nit ñi comme nu mu leen neexee ngeen di kontaan mais ku saaga yaay Ousmane Sonko ngeen mer di ngeen yàgg mer man ku saaga sama ndey ma saaga sa un point c'est tout man loolu lañ ma jàngal buñ la tooñee fayul ku saaga sama ndey ma saaga sa man duma kilifa diine duma kilifa aada duma ministre duma député duma chargé de mission duma collaborateur président duma collaborateur première dame nii laa nekk sama réseaux sociaux bi bind ñu si APR bind suñu si mouvence présidentielle Kali lañ si bind Kali dinaa défendre nag président ak régime mais bu défendre Kali fan jotee it ma défendre sama bopp mooy ku ma saaga ma fay te bu may fayu it amul kilifa lay seet wala kilifa seetu la ku ma saaga damay fayu comme yéen da ngeen di nekk si internet bi taal seen internet di saaga ndeyu nit ñi ñooñu ñu fayu man du ma genre boobu man ku ma saaga ma fayu donc yàlla yàlla defaral ñëpp jàmm yàlla na yàlla defaral salaam Khaliphone Sall est là Babacar Touré vous a dit dans 48 heures Khaliphone Sall sera hors du pays léegi di ngeen xam Babacar Touré ab dóolkat la wala du ab dóolkat ab fenkat la wala du ab fenkat man je reste fii bés bu ma sentiree dem dinaa dagg sama billet ne dem naa bu ma sentiree ñowaat ne maa ngi fii mënu leen si ñaari salaamaaleykum yéen da ngeen diis te yenuwu leen yéen ne ngeen président Macky Sall du seen président bañ nañ ko ba Ousmane Sonko nee na moom du wax président mak Sall yéen seen soi-disant ay patriote ngeen waa Pastef nee ngeen yéen bokk leen ak dara ak président Macky Sall nekkul seen président Sonkoy seen président waaye yéen bu Ousmane Sonko nekkee seen président. président Macky Sall nekkul seen président lu seen yoon bu président Macky Sall jëlee un milliard sax may Kaliphone lu seen gat lan mooy seen yoon bu président Macky Sall yëkkatee sax passeport may Kaliphone comme du seen président yéen lijjanti leen seen président lijjanti leen seen président pourtant Ousmane Sonko ngi noonu bañ ko falee Ziguinchor ba léegi jeunesse su Ziguinchor ñu ngi sonn jigéenu Ziguinchor ñu ngi sonn yëkkatiwul sax 10 millions financé leen gis nañu nit bu nekkoon ci moom di ko jàppale mu yëkkati vingt millions dóoral ko concert te loolu du ngeen ko ñaawlu gis nañu ñu jële fi ab benn capitaine Touré ngeen dajaleel ko quarante millions te loolu du ngeen ko ñaawlu bu ngeen déggoon Kaliphone Macky Sall may na ko un million ngeen ne da ngeen di mer jëlu leen fi plus de dix millions may ko Ndeye Khady Ndiaye pour corrompre ko bu ngeen déggoon may nañu kalifan deux millions ngeen ñaxtu naan Kaliphone lu mu doon ci dëkk bi bañ koy may 2 millions ndey xadi lu mu doon ci dëkk bi ba ngeen koy ketal 10 millions te jamono jooju am na seen ndey yoo xam ne bu ñuy wasin si saretu mbaam la ñuy tëdd yéen da ngeen yab nit ñi yéen da ngeen yabaate yéen daal ku bokk si yéen luñ ko defaral dagan na baax na mais ku nekkut si yéen luñ ko defaral waruñu ko defaral baaxul c'est pas normal di ngeen wax ba génnee mbonaat seen biir gémmiñ yi président Macky Sall day liggéey waa mouvance présidentielle dañuy liggéey jeunes yi di leen di jàppale si réseau sociaux yi dañuy liggéey may ziar ñoom Ba Diakhaté ak Sarr Allemagne ak gars yi yëpp ñoom bëgg a bàyyi ah ku lim Dioum sama gars yi ñoom Mati Trois Pommes ñoom Xaadim ah ñoom ñëpp ñu ngi def liggéey bu am solo si réseaux sociaux yi bu dee loolu day.